الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين gannaaw ba ñu sante suñu boroom subhanahu wa taala ñi ngi dellusiwaat ci suñu téere bii di bulughul maram doonte ni ni li ngeen bokk xam yéen ñépp ñi ngi toll ci aj makka suñu bëccëgu tey gi la aj gi commencé ci li nga xam ne ñéppay ànd di ko def ñu daje ji ca muna di yowmu tarwiya suba insha allah mooy yowmu arafa di ponk bi gën a màgg ci aj gi loolu moo taxoon ñu doon ñaan mbokk yi buñ mënoonoo dellu gannaaw ñu fàttali ko benn xadis muy xadis bi nan la yonent bi alayhi salaam aje woon da ngay dem kitaabul xaj kitaabul xaj ji moom mooy téere aj non boo xoolee mooy jur sixième juróom benneeri téere bi kitaabul xaj waaw bu dee ñi yor téere bu mel ni bi ma yor mi ngi ci page cent quatre-vingt kitaabul xaj non kitaabul xaj yi boo passé xadis bi ci jiitu mooy juróomeelu bunt bi baabu sifatil xaj yi wa duxuli makka benn xadis la ñuy jël tey incha allah muy xadis bi gën a gudd ci téere bi mooy xadis 860 bu dee muul bi ma yor baabu sifatil xajji wa mi ngi noonu wa duxuli makka mooy nu ñuy ajee ak nu ñuy jógee makka kitaabul xajji mi ngi noonu juróomeelu bunt bi mooy baabu sifatil xajj kon ñi ngi nekkoon ci bunt yi wax peine yi ñu war a teg ñi nga xam ne dañoo jalgati waaye jamono ji nga xam ne xol yépp ñu ngi Makka lu jóge trois millions de personnes ñu ngi dajaloo ca Muna ngiri jooxe jaamu yàlla gu ñu bokk ñun ñépp looloo taxoon ñu bëgg a fàttali ko benn xadiis di xadiisu Jaabir bi nga xam ni moo ñuy jàngal naka la yonent bi alayhi salatu wasalaam aje woon kitaabul xajj juróomeelu buntu baabu sifatil xajj lu jiitu ñuy dugg ci loolu it yàlla dogal na tey ci takkusaan ñu boole ci ab sëy ñaar ci ndaw ñi nekk ci jàkka ji kenn kii di Jibril Faal ki ci des di Fatima Sarr ñi ngi ñaan yal na yàlla barkeel seen diggante yal na yàlla boole leen ci aw yiw boole ko ci sëy yi gën a barkeel yi ñu takk ci kaw suuf defal ko ñun ñépp sunu njaboot te it defal ko mboole mi njabooti jullit ñépp loole ñi nga xam ne ñooy topp groupe bi jàkk ji it mooy Fatima Sarr bi bokk ci seen staff bi mi ngi noonu ngeen bàyyi ko xel ci noonu kon incha allah ñu jël xadis bi muy benn xadis rek xam naa dañ koy jël par cër cër incha allah
الباب الخامس باب صفة الحج ودخول مكة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس فقال اغتسلي واستكفري بثوب وأحرمي وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ثم رجع إلى الركن فاستلم ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فرقي الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا وذكر الحديث
kon mbokk xadis bi yàlla dogaloon na ñu jëloon ko fii daaw ci juróom benneelu fan ci zul qaada daanika ñu ngi def léegi kon at ak weer mu tombe woon ngi te jamono yi aj makka baabu sifatil hajji wa duxuli makka day woni buntu melokaanu aj ak nu ñuy dugge makka an jabir ibn abdillah radiallahu anhuma jële nañ ci jabir moomu an rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam hajja mu ne yonente bi alayhi salaam day aj na fa xarajna maahu ñu génn ànd ak moom xatta ida atayna zal xulayfa ba baa ñuy dikk place bu ñuy tuddee zal xulayfa fa waladat asmaau bintu abi bintu umaysin mu daa di wasin kii di asma bintu umays fa qaal yonente bi alei salaam ne ko ixtasili na nga sangu wastasfiri ca nga ngémb bi saw bin ci benn yére wa waxrimi ca nga daal di armal mi ngi noonu mbokk cat bi ñu jot a jàng lii mooy xadiisu jaabir bi jàngale ajog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy benn xadiis boo xam ne borom xam-xam yi am na ko ci bindub téere génn ca téeméeri atte ak juróom fukk cent cinquante atte ci benn hadis bi jaabir nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam day aj na at googu benn at la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aj ñu yëgle ko ci gox yépp doomu aadama yi ñëw madina ba dañ ne li dajawoon madina mat na téeméeri junni nit téeméeri junni quatorze siècle en arrière loolu da ngay gis ne moo ëpp un million suñu jamono yi tey ñoom ñépp ngir ñëw bëgg a roy ci ajug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bi ñu génnee ñu dem ba place ñuy tuddee Zal Xulayfa sénégalais yi jóge Madina di aji ji Makka fa la ñuy armale bi ñu yeggee foofu kii di asma bintu umays jamono jooju mi ngi nekkoon soxna abubakar radiyallahu anhu doonte ne bi asma bi abubakar faatoo ali ibnu abi talib moo ko takk bi ali mi ngi noonu bi bi bi abubakar faatoo kaka jëkkoon a takk mooy jaafar jaafar nga xam ne frère ali la moo doon sëy ak asma mu faatu abubakar takk ko mu faatu ali ibn abi talib takk ko wali na sahaaba yi benn lañu woon yal na yàlla rëbb chia yi leen di teqale kon jamono boobu soxna Aboubacar la Aboubacar am ci moom doom bu ñuy wax Muhammad ibnu Aboubacar mi juddu keroog bi yonent bi dee armal yonent bi ne ko garaawul léegi fexeel nga sangu comme ñi armal di sangu nga ngemb ba deret ji di tuuru ci kaw nga def lu ujaaj yi di def lépp muy wane ne mbokk kii aj Makka am doom dereti wasin du ko tey def la ujaaj yi def dereti règle du ko tey def la ujaaj yi di def allahuma ixtilaaf ba borom xam-xam yi am mooy moom du wër kaaba ga la ëpp ci ñoom it loolu la ñu wax am na ñu néew ci ñoom ñuy jàpp ne mën na war kaaba ga waaye la ëpp ci ñoom dañ ne déedéet xadiisu Aïcha ba mooy wane ne mënul war kaaba ga mën na daw Safa ak Marwa nag mën na dem Arafat li ñuy def yépp mën na ko def waaye kaaba gi moom day xaar balaab doog koo mën a wër kon nee nañ loolu am na yonent bi ne ko armalal bu ñu continuer ci hadis bi wa salla rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi lmasjid yonent bi julli ca jàkkaa ja ay jàkkaa ja nekk ca zul xalifa summa rakiba qaswa gannaaw ba mu war giliimam dañuy wax qaswa xatta ida stawat bihi ala bayda ba baa mu yegsi ca place bu ñu doon tudde bayda ahalla bi tawxid mu daal di kaweel ci kàddoog tawxid ca loolu mooy lan mooy labbayk allahuma labbayk wuy si nañ la eyow yàlla ñu ngi sax ci dële wuy si labbayka la sharika laka labbayk wuy si nañ la kenn yeyowul ñu koy bokkaaleeg yow ñu ngi lay wuy si inna alhamda wa nicmata laka wal mulk mboolem xéewal yi mbo mboolem cant yi mboolem xéewal yi ñeel na la nguur gi it ñeel na la la sharika lak amul kenn koy bakkaaleeg loolu kon gis nañ ni yonente bi alayhi salaam loolu la yëkkati sahaaba yépp di ko dégg te it mu nekk nañu sunna ci koo xam ni dafa dem aji ji màkk mu ne xatta ida atayna al bayt loolu dañul di ko wax ba baa ñuy yegsi ca kaaba ga istalama ruknal mu daa di dem raay la nga xam ne mooy xadrul aswad ba nekk ca rukna ba doonte ne ni xadrul aswad la gën nga foon ko wala nga raay ko soo ko mënul foon mënoo ko raay am na ca borom xam-xam yu nii da ngay jàkkaarloog moom kabbar doonte ne am na ñeneen ñu nii déedéet da ngay continuer rek ñu ngi noonu fa ramala salaasan wa masha arbaa bi ñëwee ci kaaba gi mu daal di ñug ko xaw a mel na koy daw war ko ñetti yoon ñeenti yoon yi des mu daal di dox te loolu mooy sunna képp ko aji ji màkka ba nga ñëwee ca wër bu jëkk ba ga ngay jëkk wër te aj màkka dana wër kaaba ga ñetti yoon ba muy doog a ñëw bisu tabaski ba ak bis bi muy tàggoo bu dee ba ngay doog a ñëw da nga koy wër ñetti yoon yoo xam ne da ngay ñukk ñe ñeenti yi ca des nga dox normal loolu amoon na ay sabab yu ko waraloon waaye islaam saxal ko mu ni summa ata maqaama ibrahim fa salla gannaaw bu mu dem ca maqaamu ibrahim daa di fay julli comme ni ko yàlla santaane maqaamu ibrahim jamono yonent bi laa susuun ci kaaba gi xam ne boo wëree kaaba gi ba pare da ngay ñëw taxaw ci gannaawum julli biñ demee ba jamono omar ibnul xattaab nit ñi di ci fakkasalu lu bëri ca la ko omar dégagé teg ko à l'écart ne summa rajaa ila ruknu gannaaw ba mu delluwaat ca pied ba mooy ruknu ba nga xam ne fa la xajrul aswad nekk fastalamahu mu daal di koy raay summa xaraja min al baabi ila safa gannaaw ba mu daal di jóge jëm ca bunt ba génn ca bunt ba ay buntu kaaba ga jëm ca safa marwa falamma dana min safa ba mu demee ba yegsi ci tund wu ñëw safa qaraa mu daal di jàng inna safa wal marwata min sha'airillah daal di jàng aaya ba yàllay wax safa ak marwa day ci mandargay yàlla yi la muy wone it ne aaya boobu ku ko man bala ngaa yéeg safa loolu ngay wax abda'u bima bada allahu bihi mu ne maa ngi tàmbali ca la yàlla tàmbali ay kon jëkk ci sawaab safa bala maa dem ci marwa fa raqiya safa mu yéeg ca kaw tund safa wa xatta ra al bayt ba baa muy seen kaaba gi mu ngi noonu fastaqbala al qibla mu daal di jublu qibla ba ca bay kaaba ga fa waxada allah wa kabbara mu daal di wéetal yàlla màggal yàlla naka la ko defee qaala laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu almulk wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shayin qadir kenn yooyu ñu koy jaamu ku dul yàlla amul benn bokkaale moo moom nguur gépp moo moom cant yépp moo am kàttan ci lu mu mën a doon laa ilaha illa allah waxda kenn yewul ñu koy jaamu ko dul yàlla kese anjaza waxda sottal na lam digi woon na dana dimbali ab yonentam wa nasara abda dimbali na la nga xam ne mooy ab jaamam wa hazama al ahzaba waxda dàq na kuréel ya nga xam ne ñoo doon xeex diineem moom kese summa daa bayna zalik gannaaw ba mu ñaan diggante loolu xaale misla hada salaasa marrat wax na loolu ñetti yoon kon mbokk ci war a wër safa ak marwa su demee ba yegg ci safa ñaan gi ñuy wax su ko mënee moom lay wax su ko waxee ba pare ñaan ay soxlaam waxaat ko ñaanaat ay soxlaam waxaat ko doog a wàcc jëm marwa doonte ne lii la yonent bi waxoon muy lu rafet waaye leneen loo xam ne ni it mënuloo ko lii nekkul farata loo mën a ñaan rek baax na ñu ngi mel ne rek bi ngay wër kaaba ga loo mën a ñaan baax na doonte ne ñaan ba gën mooy rabbana atina fi dunya xasana wa fi laaxirati xasana wa qina azaba annar kon pare na ca safa summa nazala mu daal di wàcc ilal marwa jëm marwa حتى إذا حتى إذا انصبت قدماء في بطن وادي صاء bam demee ba ay tànkam daa di sampee ca biir xurwa mu daa di commencé daw wa zakara alxadis mu daa di tudd xadis ba bokk diggante Safa ak Marwa nekk na ay 400 mètres léegi nag ci diggante bi dafa am benn place boo xam ni dafa suufe loole ba mu fa rombee mu daw lan moo doon cosaanam cosaanam mooy li ngeen yàgg dégg Ibrahima yóbbu na soxnaam Haajara ci désertu Makka kenn dëkk fa mu boole kook Ismaïl ñu yóbboon benn këll bu ñu def ndox benn mbuus bu ñu defi tàndarma biñ demee ba ndox mi jeex ismail di jooy hajara daw ca tund safa ngir xool ndax du am jëgg juy romb xool gisul dara mu wàcc seen tund marwa mu ne la dem ca marwa bi mu yëgsee fekk ismail di jooy bëggul dégg jooy yi mu daw ba sori ko ba déggatul jooy yi mu commencé dox di dox ba marwa yéeg xool xool gisul kenn mu retourné waat bi mu ñëwee gis Ismaïl jooy mu dawaat loolee mu def ko sept fois juróom-ñaari yoon suñu borom di ko seetaan ba ci juróom-ñaareelu yoon bi ca la yónni Jibril Jibril ñëw këdd suuf ndox bi commencé naan bëx bëx bëx di génn di sànni Haajara ñëw ndox mi bëgg a déborder mu naan ko zëm zëm dalal dalal ba looloo tax ñu tuddee ko zëm zëm yonent bi alayhi salaam ne bu dul woon nag haajara moo ne ko zëm zëm kon dex lay doon waaye it dex la depuis quatre mille à cinq mille ans doomu aadama yayi ñi ngi koy root année bu nekk lañ ciy génne si des milliers de mètres cubes yu ñu tasaare de par le monde loolu suñu borom di ci jàngal nit ñi it ne jullit bul gaaw a découragé mi ngi noonu am nañ fi benn gan yàlla dogal na ko ba xëy na dem na suñu mbokk Ousmane Thiam fi la jëlee ñun léegi timis yàlla na yàlla def doolu ñuy yiw moom ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen bari nañu ñëw ci man man kat imam daal vraiment dama am problème ci jigéen ñi déception sur déception wala ñeneen ñi ñëw di ma wax examen échec échec wala tukki làmb nañ ba sonn li ma leen di wax mooy ndax am ngeen ci juróom-ñaari yoon yu ngeen def amu leen ñu ne ah déedéet ma ne leen kon bu leen découragé làmb nga ciy baaxul làmb bee baaxul làmb bee baaxul tant que jurit la ngay wër demoo essayé ko juróom ñaari yoon benn sottiwul wuroo gaaw a découragé ndax suñu borom yàlla bu ko neexoon keroog bi haajara demee benn yoon wala ñaari yoon mu xettili ko mais mi ngi ko bàyyi sept fois looloo tax soxna si nga làmb gis ci ay ngant làmb bee gis ci ay ngant bee nga am ci yaakaar lool gis ci ay ngant rafetal njort ci yàlla ni mi ngi lay denc lu gën loolu waa ji ñëw bëgg si la yàlla def ci ngant keneen ñëw bëgg la yàlla def ci ñaant kee bëggoon nga ko lool yàlla def ci ngant rafetal njort ne yàlla ngi lay dencal ñu gën ñooñu examen bi nga échec place bi ngay demandé tukki bi nga bëgg lépp loo xam ne yaa nga cay dem di dem di dem rafetal njort ne yàlla ngi lay denc lu ëpp loolu loolu kon moo tax suñu boroom def loolu kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamee ne nii def na loolu ba mu demee ca marwa noonu it la fa def moo tax summa nazala ila al marwa xatta ida nsabat qadamaahu fi batni lwaadi saa ba mu demee ca marwa ba muy dellu si ba ñëw ca xurwa mu daal di dawaat xatta ida saida xatta ida saidna ba baa ñuy yéeg macha mu daal di commencé dox xatta ata al marwa ba mu yegg si marwa fa faala ala al marwa kama faala ala safa mu def ca marwa lam def ca safa kon mbokk mi ngi noonu safa ak marwa juróom-ñaari yoon lañ koy dox léeg-léeg na nga gis ni ñu ñu ñu ñuy juum ndeysaan jàpp ne dafay nekk juróom-ñaari tuur loolu mbokk erreur bu rëy la du juróom-ñaari tuur mais aller bi benn la retour benn la aller trois retour quatre cinq six sept noonu lay demee mi ngi noonu amaa bu dee kaabe gi moom bi nga jógee xajrul awsat da ngay wër kaabe gi ba mu jeex takk ngay doog wax benn ba baa sept tours yi di mat loolu kon mbokkoo moom lañ jotoon a jël ci liñ jëloon ci arab bi incha allah ñu jël beneen bind
فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنذرة فنزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصوان فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوان إلى الصخرات وجعل جبل المجاة بين يديه واستقبل القبلة
kon wa fiihi bokk na ci xadiisu Jaabir falamma kaana yowmu tarwiya ban demee ca bisu juróom-ñetteel ba mooy bis bu mel ne suñu bisub tey bi tawajjaha ila mina yonent bi jóge makka jëm ca mina wa rakiba annabiyu sallallahu alayhi wa sallam mu daal di yéeg ca gileemam ga fa salla biha zuhra wal asra wal maghriba wal isha wal fajr moom demee mu julli fa juróomi waxtu yooye muy tisbaar ba baa mu fay julli fajar ñu ngi wax ne am na ñoo xam ni dañ fay jóge avant fajar loolu kenn waru ko def lu dul ko jàpp ne bu la fa fajar fekkee da ngay am problème pour dem waaye bu dul loolu juróomi waxtu yi dañ fa war a julli summa makasa qalila ba mu jullee fajar ba pare toog na ci mën a xatta talaati shams ba ba jant bay fenk fa ajaza xatta ata arafa mu daal di continuer ay romb musdalifa ba baa mu yegg arafa fa wajada qubbata qad duribat lahu bin namira mu fekk benn xayma buñ ko dóoraloon ay buñ ko tegaloon ci place bu ñuy wax namira nga xam ne tey fa lañ tabax jumaa ju mag jooju di jumaa namira fa nazala biha yonent bi wàcc foofee hatta ida zagati shams bam demee ba jant ba jeng ci kaw asamaan ba ay tisbar jot na kon amara bil qaswa fa ruxilat lahu mu digli ci gileemam nga di wax qaswa ñu daal di ko koy tegal fa ata batna al waadi mu ñëw ci biir xurwa fa xataba annaas mu xutba fa nit ña summa azana summa aqaam gannaaw ba mu noddu taxawal ay mu dig la ñu nodd dig la ñu taxawal fa salla zuhra mu tab taxawal mu julli tisbaar suma aqaama fa salla al asr ñu iqaamaak julli takkusaan walam yusalli baynahuma shay'a diggante ba julliwu fa dara summa rakiba hatta ata al mawqif gannaaw ba mu waraat gilimam ga ba baa mu yegg si ca taxawaay ba ca arafa fa jaala batna naaqatihi al qaswa ila al saxaraat mu daal di jël la nga xam ni mooy biiru giléemam nga daal di koy jubale ca xeer ya nekk ca jabal rahma wa jaala jabal al mashaat mu daal di def la nga xam ne moom la ñu tuddee tund woowee di tund ñay dox bayna yadayhi ci kanamam wastaqbala al qibla mu daal di jublu nag la nga xam ne mooy qibla ba almuhim mbokk li lim ñuy jàngal rek mooy état bu aj makka nañu xam ni tey la commencé tey ujaaji mina la ñuy nekk dañ faa war a julli tisbaar takkusaan timis ak gee fanaan ba suba ñu julli fajar suñ jullee fajar ba pare dañ faa war a toog ba jant bi fenk ñu doog a dem arafat bu demee arafat bokkoon na li gën ñu toog ca bunt ba wante ne yooyu jafe na léegi nit ñi amul ak seen nombre mënatuñ ko waaye bu tisbaar jotee ñu daal di julli boole tisbaar ak takkusaan fi ñuy jullee léegi fa la yonent bi jullee woon waaye nombre bi léegi yegg na foo xam ne nit ñëpp mënuñu daje jumaa ji donc nit ñi dañuy tasaaroo ci arafa yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu jullee bi mu jullee daa boole tisbaar ak takkusaan diggante bi julli wu ci dara te it kuy boolu julli noonu ngay def diggante ñaari julli yi doo ci naafila loolu muy sunna képp ku dem arafat même bu dee demoo ca jumaat foo mën a nekk ci arafat su sunna mooy da ngaa war a boole tisbar ak takkusaan bi mu paree mu daal di dem nag fi ñu tuddee jabalul rahma ci benn montagne bu nekk ci arafat mi ngi noonu sorewul ak dal yu Sénégal yi lañ bëri fan ñu nekk daal di taxaw foofee doonte ne ni rasul sallallahu alayhi wasallam nee na taxaw naa fii de waaye arafat yépp taxawukaay la arafat gox la bu yaatu mi ngi noonu ab àll la bu yaatu yonent bi ne fu fi waay taxaw rek taxaw naa li ñuy tuddee taxawaayu arafat firiwul ne da ngaa war a dem taxaw bëccëg bi yépp waaye taxawaayu arafat mooy teew fa rek da nga doon tëdd di nelawam da nga doon def lu nekk ala kulli xaal teew ba ngay teew arafa loolu la ñuy tuddee taxawaayu arafa mi ngi noonu incha allah ñu jël beneen bind
falam yazal waqifan hatta gharabat ash-shams wa dhahabat as-sufratu qalilan hatta idha ghaba al-qurs dafa'a wa qad shaqqa bil-qaswati ad-dimam hatta inna ra'saha la yusibu mawrika rahlihi wa yaqulu bi yadihi al-yumna ya ayyuha an-nas السكينة السكينة وكلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة
kon mu ne it falam yazal waaqifa yonent bi dañul di taxaw ca kaw gileemam ga ca arafat xatta garaba xatta garabati shams ba ba jant ba di so wa zahabat sufra qalila la nga xam ne mooy jaune jaune yay topp sow jant ga dem xatta gaabal xursu ba baa muy dem ba la nga xam ne mooy ceeñar yi ca toppoon yépp dem wa dafa mu daa di wàcc nag pour war a dem léegi musdalifa wa qad shanaqa lil qaswa zimam mi ngi nekkoon di xocc ay di xëcc bu baax ñel qaswa la nga xam ne mooy ngalaab gën ko ngalaaboon xatta ina rasaha lu yusibu mawrika raxli ba baa sax bopp qaswa di xaw a laal la nga xam ne mooy fa ñuy teg ay tànkam ca kaw gilem ga ñu koy tudde mawrik ngir ni yonent bi alayhi salaam xëcci woon buum gi ngir bañ gilem gi di daw di di dox dox bu baax ndax mbooloo mi niñ bëri wa yaqulu bi yadihi al yumna ya ayuha nnas assakina assakina gannaaw ba nag muy wax nit ñi e way dal leen dal leen wa kullama ata hablan min al hibal heure bu yegsee benn tund ca tund ya arxaalaha xali qalila mu woye falal ñeel giléem gi tuuti xatta tasada ba mu yéeg ko xatta atal musdalifa ba baa muy yegsi fi ñu tuddee musdalifa fa salla biha almagrib mu julli fa timis wala isha ak gee bi azanin wahid ci benn nodd wa iqaamatayni ak ñaari liqaam walam yusabbih baynahuma shay'a doonte ne naafiliwul ci diggante ba dara summa tajaa xatta tala al fajar gannaaw bu mu tëdd ba ba fajar di fenk wa salla al fajar mu julli ñaari rak mu julli fajar ga xiina tabayyana lahu subhu ba mu demee ba leer ko ne suba jot na bi azanin wa iqaam ci benn nodd ak benn liqaam mbokk jullit place yu mag yi nekk ci aj makka gannaaw kaaba ga da ngay gis ne bi ci jëkk mooy mino bi nga xam ni fa la mboole mu ujaaj yi fanaan tey ñaareelu place yi mooy arafa fa la ñu jëm suba ci altine ji fa la ñuy war a yendu ba ba jant bi di so ñépp a fara toog ba ba jant bi di so soo demee ñi nga xam ne ñu jiite at gi dañu permettre kenn gën lu dul jant bi solo bu jant bi soo ki jiite at gi nga xam ne ki di Abdullah Abdul Aziz moo ko daan jiite at yi yépp yàlla dogal na mu dem ba léegi màgget na ba daaw ki nga xam ne mooy Sudaysi moo ko jiite su ko defee kooku mooy génn njëkk a génn Arafat mbooloo mi doog a topp ci moom suñ jógee Arafat ni ngi war a dem place bi ñuy tudde Muzdalifa ngi noonu suba ci guddi foofee lu ujaaj yi war a daje ñépp fa waroon a faraan ba mu des ñi am ngant màgget yi ak jigéen ñi ngi noonu waaye bu dul looloo ñépp fa war a fanaan na fa yonent bi alayhi salaam fanaani woon bi ñuy Muzdalifa dafa wàcc julli fa timis ak gée looloo tax bu la timis fekkee Arafat it doo fa jullee timis même bu doon trois heures du matin nga yegg Muzdalifa da ngay bàyyi ba yegg Muzdalifa doogu julli timis ak gee boole ko gannaaw ba nga tëdd ba suba jot nga jóg julli suba soo jullee suba ba pare comme ni ko yonent bi alayhi salaatu salaam defee woon gannaaw ba nag la fay doog a jógee wala jëm fale nga xamee ni nii mooy jamaraat yi doonte ne ne loolu moom lañu nar a jàng nii
ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدعا قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسن فحرك
kon rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaji mu ne suma rakiba gannaa bu mu julee fajar mu warat gileemam ga xatta atal mashar al ara mashar al haram ba mu yëgsi ci place bu ñuy tuddee mashar al haram nga xam ne benn place la ci muzdalifa doonte ne doon na wax taxaw naa fii waaye wal jamu kulluhu mawqif muzdalifa yépp ko fi taxaw taxaw nga ci acc fastaqbala alqibla mu taxaw jàkkaarloo qibla ba fa da'aahu mu nekk fa daa mu nekk di ñaan wala boog mu muy ñaan boroomam wa kabbarahu di kabbar boroomam di ko màggal wa hëllalahu di wane tawxid la ilaha illallah falam yazal waaqifan xatta asfara jiddan nekkul di deñ di taxaw ba ba mu daal di leer lool ay jant bay waaj a fenk mi ngi noonu fa dafa qabla an tatlu ash-shams mu daal di wàcc jóge Muzdalifa avant jant bi di fenk xatta ata batna al-muhassar ba ba mu yegsi ca biir foofee nga xam ne fa la ñuy fege woon abrahata ba doon bëgg a tëj kaaba ga fa xaraka qalila mu doog a mu daal di gaawal gileemam ga tuuti mi ngi noonu summa salaka tariqa alwusta mu daal di jaar ca yoon ba gën a digg doomu alati taxruju ala aljamarati alkubra ba ba boobee nga xam ne moo ko yóbbu ca jamra bu màgg ba mi ngi noonu bokk julit rasul sallallahu alayhi wa sallam gis nañu ci biir ajam muy wane ne ujaaj bi mooy ki génn daanika adduna jëm ci boroomam bari na la gën a mandargal aj mooy ak ñaan rasul sallallahu alayhi wa sallam gis nañu ne keroog arafat bi mu jullee tisbaar ak takkusaan taxaw na di ñaan ba jant bi so loolu dana jege quatre heures wala cinq heures de temps yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi taxaw di ko ñaan boromam ba mu demee Muzdalifa ba mu jullee fajar ba pare it dafa dem taxaw di ñaan di ñaan di ñaan ba ba jant bi waaj a fenk mu daal di en commencé nag doog a wàcc donte ne ne foofu yëpp uute na fa ak yéeféer yi ndax diine lislaam bi mooy diine wuuteeg yéeféer benn bu jëkk ñi nga xam ne ñooy waa Quraysh ñoom dañ daan wax ne ñun ñooy noobal yi ñun duñu génn alxaram ay baadoolo yi ñoom nañ dem Arafat mais ñun duñ dem Arafat suñu borom nag ne afidu min haysu afada an-nas yéen ñëpp dem leen Arafat yonent bi dem Arafat yéeféer yi dañ daan acc dañ daan jóge arafat avant jant bi di so rasul sallallahu alayhi wasallam moom bàyyi ba jant bi so mu doog a dem yéeféer yi bu ñu masaan nekk muzdalifa dañ fa daan toog ba jant bi fenk rasul sallallahu alayhi wasallam contre leen ba muy ñaan ba jant bay waaje fenk mu dem lu tax nga mënaan la yéeféer nii lañ daan def mbokk at màkk ku ko indi woon ibrahima alayhi salaam donc comme mbir la bu daan répété wu chaque année yéeféer yi liñ daan jaxase jaxase seen diine aj Makka moom lañ ko doon def comme ni ko julliti tey di defee allahuma lu dul ñoom gëmuñu woon allaxira seen ñaan yépp ci àdduna rek la yemoon mu ngi noonu waaye dañ daan dem Mina dañ daan dem Arafa dañ daan dem Muzdalifa dañ daan wër Kaaba gi ila axiri kon lii la rasul sallallahu alayhi wasallam def gannaaw ba nag bi mu jógee Muzdalifa ca la jëm nag ci li ñuy tuddee jamra ya jamra ya gis nañu ne ñetti jamra la am na jamra yi bu ñuy tuddee jamra bu màgg ba nga xam ne bisu tabaski bi wala ñu ngi noonu bu jógee Arafat suba war a fanaan Muzdalifa ci guddi googu wala ci suba ga ca la ñuy war a dem sànni jamra ya ñi am gànt mën nañ ko sànni ci guddi gi ñi ci des la gën ci ñoom ñu bàyyi ba suba ga ñu da koo sànni loolu mi ngi noonu moo tax ci li ñuy bi ñuy mujjee jàng ñu jàng loolu mu ne nag xatta ita xatta atal jamrata allati inda shajara ba mu ñëwee ca jamra ba nekk ca garab ga ñu koy tuddee jamratul aqaba doonte ne ay garab amatu fa léegi fa ramaha bi sabi xasaya yonent bi sànni ko ñetti xeer yukabbiru maa kulli xasaatin minha heure buy sànni benn xeer da koy booleeg allahu akbar kull xasaatin mislu hada al qazf bépp xeer day mel ne xeeru yi ñuy sànni alqazf mooy xeer boo xam ne sa ñaari baaraam a koy téye mi ngi noonu nga xam ne kon aj makka du ay xeer yu rëy la ñuy sànni ci jamra ba lii di royaume arabie saoudite ren sax am na lu ñu initié lu ñu def lu baax te mooy nombre de pèlerins yi li ñuy war a soxla ci xeer yépp fexe nañ ba ut ay xeer yoo xam ni yu méngoog loolu la raxas ko ba mu set defar ko ci ay sachet mbuus yi ndaw yoo xam ni def nañ ci un million de mbuus mbuus bu nekk ñu def ci luy doy ñetti nit nga xam ne bu ñu ko séddalee même ujaaji bi ñuy trois millions ku nekk dana fekk ci mbuus yi xeer ya la doy booy aj makka yaa ngi soxla quarante neuf xeer c'est le minimum quarante neuf xeer moom ngay soxla sànni bu njëkk bi juróom-ñaari xeer ngay sànni ca suba ga ñaar fukki xeer ak benn ngay sànni bu ko defee muy vingt muy ñaata ñaa muy nekk vingt huit ca gannaaw suba ga nga sànniwaat ñaar fukki xeer ak benn muy quarante neuf xeer amma boo fa fanaanee ca ñetteelu fan ba donte ne ña koy def bëriwul fokk nga dolli ci yeneen vingt et un xeer loolee boo ko boolee muy soixante dix xeer waaye ñoom yal na yàlla fay leen ku nekk utal nañ la xeer yoo xam ne dana la doy donte ne yooyu nekkoon na coono ci ujaaj yu bëri kon yonent bi alayhi salaam noonu la doon sànni di sànni xeer bu nekk mukabbar xeer bu nekk mukabbar gannaaw ba nag mu ne su ca la wëlbatikoo dem ca fa ñuy reyee ca Mina fa nga xam ne fa la ñuy reyee yonent bi alayhi salaam yéeg gileemam ga daa di fay dem daa di rey la muy rey ca mbokk bu jëkk ku nekk yaay reyal sa bopp la nga xamee ne moom ngay rey falilahi alhamdu léegi nag ak nit ñi ni ñu bëri am na benn boucherie yoo xam ne fa la ñuy rey boucherie bi rek am na capacité rey cinq cent mille xar ci benn jour bu nekk mi ngi noonu su ko defee maadaama ñetti fan yëpp fan yi rey la donc mën nañu faa rey un million cinq cent mille ci ay xar gannaaw loolu juróom-ñaari ujaaj yépp mën nañ bokk benn giléem juróom-ñaari ujaaj yépp mën nañ bokk benn nag loolu kon moo tax ca xam ngeen ne ujaaj yi du ñéppay soxlaa rey ñiy def tamaton ak ñiy def qiraan ñoom rek ñooy rey mais ñi nga xam ne ak kese la ñuy def comme majorité sénégalais yi la ñuy def ñoom duñu rey loolu kon mbokk yonent bi alayhi salaatu wasalaam ki nga xam ne daa aji makka lam war a rey mooy benn gàtt waaye moom ngir jaamu yàlla ngir bëgg tuyaaba ju bëri téeméeri giléem la rey sallallahu alayhi wa sallam téeméeri giléem la rey loolu moo tax ba lenn ci borom xam-xam yi dañ ni tabaski moom la ca gën mooy xar bu denti ne nag aj makka la ca gën mooy giléem ndax yonent bi musul tabaski lu dul ay xar ba mu demee màkk it giléem la fa rey mi ngi noonu ci wàllu googee gannaaw ba yonent bi alayhi salaam mu ne suma rakiba rasul sallallahu alayhi wasallam fa afaada ilal bayt ca la dem nag wàcc ji ca la nga xamee ne nii mooy kaaba ga doonte ne am na lu mu tëb foofu ca mooy yonent bi bi mu reyee ba pare wattu na sallallahu alayhi wasallam gannaaw ba doog a dem ca kaaba ga wàcc googee ñuy wàcc ca kaaba ga moom la ñuy tudde tawaaful ifaada mooy ponk bi gën a màgg ci at gi mooy la ngay wër kaaba ga ca bisu fukkeel ba gannaaw ba nga sànnee jamra ba pare yonent bi alayhi salaam dem wër kaaba ga gannaaw ba toog fa ba julli tisbaar doog a delluwaat fale nga xam ne mooy mun a mbokk bu ñu xoolee xadis bi mu ne muslim solo na ko waaye solo na ko nu gën a gudd ci moom nii mu ko tënke mboolem lu doomu aadama di jàngale ci wàllu aj màkka ca boo xoolee bunt bi ñuy toll mooy juróomul juróomee la bunt ci bunt at gi ci téere bi ñu nekk rek am na yeneen ni bunt yeneen ni bunt waaye yépp xam leen na base ba ñi ngi ko jëlee ci xadis bi nga xam ne mooy jàngale ajog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu waral loolu bokk yonent yàlla bi moo ne woon xuzu anni manasikakum jële leen ci man ni ngeen di aje loolu it moo tax ba mboolem lu ñuy def ci aj màkka nañu xam ne yonent bi alayhi salaam moo ko jàngale te yonent bi alayhi salaam mboolem lu mu jàngale suñu borom yàlla moo ko jàngale loolu nga la way ñu bàyyi ci xel bu baax am na ay yàqkat yoo xamee ni nii bu doon ay yéeféra sax du doon lu metti xol waaye ay doomi julit woote ndajam julit ay junni wër la nga naan man day dem màkk di sànni jamra dama koo kontar loolu ragal naa suñu réew rek lañ ko ñemee waxe te mbokk loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def na ko yonent bi ay sahabaam def nañ ko depuis quatorze siècle jurit yi ñu ngi koy def loolee da ngay gis ni la doon jubluwaay bi mooy Ibrahima ba mu jógee bëgg def ndigalu yàlla ci rey doomam jadi Ismaïl seytaane ñëw na dajeeg moom waa Ibrahima xanaa yow àndoog sa xel gént rek noo ci rey sa doom mu jël juróom-ñaari xeer sànni ko mu demaat ba fi ñu tuddee jamratul wusta mu dellu siwaat mu sànni koy xeer mu demaat ba jamratul aqaba mu daal di koy dellu siwaat mu sànni koy xeer kon loolu Ibrahima ko jëkk a def mboolem yeneen yi aj gannaawam def ko sunu yonent alayhi salatu wasalaam feddali ko sahabatul kiram di ko def ab julit bu taxawee di ko critiquer mbokk loolu nekk na loo xam ne lu ñaaw na lool su ko defee lépp loo xam ne dafa aju ci aj makka na xam ne julit bi da koy def xam ne ci ndégalu yàlla la lu tax sunu yónniwu ci loolu pourquoi ñuy dem di taxaw Arafa sunu yónniwu ci loolu noonu lu ko yàlla déglee lu tax ñuy fóon xajarul aswad ba pare di sànni jamra ba xanaa du ñoom ñaar ñëpp ay xeer lañ lu tax ñuy fóon bi di sànni bee xeer yàlla moo ko bëggee noonu jeex na lu tax ñuy wër kaaba gi yàlla ko bëggee noonu jeex na su ko defee mbokk jullit nii lay gisee mbir yépp ci wàllu diine kon lii mooy xadis bu kawe bi nga xam ne nii moom la ñu jël tey ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala nii ko yonent bi alayhi salaam defee ñun ñëpp yal nañu yàlla wërsëgal bis ni mas koo defee noonu yal na yàlla subhanahu wa taala dogal ci ñun mboolem jàmm bu ko deful it yool ba ci jógee yàlla wërsëgal la ko wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa alhamdulillah xam na comme ni ngeen ko xamee ñu ngi war a julli fii it insha allah sub alti talaata ji di ñëw talaata ji di ñëw ci 9 heures incha allah ñu ngi bëgg a taxawal fii jullik it donte ni ñu ngi ñaan yàlla boole nangul ñëpp am na ñuy yëgle it ne dañuy julli fii baaw naan ci akapes suba ci 10 heures donte ne xaw ma ban mbooloo la ah suba ci 9 heures naam ñu ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw su doon tane incha allah mbokk yi am bismillah naam mu ne mu ne lan waaw waaw dafa ko jox paasu Makka pour mu dem Makka ba pare moom demul ala kulli xaal dañuy lan moo tax demul su dee ne dañoo gis ne ay nganta tax demul war naa dem ca ka joxoon paasam ne ko kat yaa ma joxoon paas Makka waaye mun mënumaa dem wala mënumaa dem ren su ko defee kooku moom dana xam nan lay def ak moom ndax mbir bi mooy nekkoon ne ak ndimbal rek la bëggoon ci moom wala aj Makka la sakk woon ci moom su sakk bu dee ne gis na ne aj màkk gi la sàkk woon demul mu jël paas bi jox ko ko mën a dem su dee ne itamit da ko koo dimbali mooy moo xam gis nañ kenn ñenn ci suñuy mbokk benn waaye ñëw na jox ko may ko paasu màkk mu ne ko dëgg dëgg de paasu màkk farata la waaye fi ma toll nii location dama sonal teg ma bàyyi ma yëkkati ci sama ñaari néeg yi ah waa ju jox ko ndigal ci loolu ah loolu moom seen mbir la wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaw
jërëjëf dafay wàññiwaat beneen bi mooy xeer yu ñu sànni jamono fan la ñuy jógee jamono
xeer yi la nga xam ne mooy aada dañ koy fore ca Muzdalifa waaye foo ko mën a fore baax na su doon Sénégal gi nga jël say xeer def sa biteel yóbbaale te loolu la ñuy conseillé képp ko fay dem sax loole da ngay gis ne baax na amul ñu ngi noonu amma bu dee julli yi ñu julli ci Muzdalifa dañ koy boole ñaari julli rek la muy timis ak gée ak fajar ga nga xam ne da nga ko faa war a julli avant ngay dem doonte ne quatre-vingt-dix pour cent nit ñi dootuñu fa xaarati fajar waaye dañ faa war a julli timis ak gée xaar fa bu julli fajar doo ko dem mi ngi noonu bu dee mun naa moom fan yi nga fay def su boobaa waxtu wu nekk da nga koy julli ca la nga xam ne mooy waxtoom mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam ah ah ah gée bi waaw da ngay wàññi kaat rakka dañuy da ngay julli ñaari rakka ngay julli gée ñaari rakka ngay julli ngay julli nañ koy waxati ngay julli nañ koy waxati timis ñett timis ñetti rakka gée bi ñaari rakka naam waaw waaw mu ne dafa doon wax ndax xeer bi ci suuf rek lay nekk di cosaan ala kulli xaal la nga xam ne mooy cosaan bii day mooy xeer allahuma lu dul doomu aadama bi demoon ba amul xeer waaye boo mënee am xeer moom la nga xam ne muy sunna ci sànni jamra mooy xeer lay doon mi nga noonu allahuma lu dul xëy na xeer amul nga am lu mel ne ay per wala lu mel ne leneen waaye fokk moom mu nekk xeer loolu moo nekkoon cosaan ba lu dul ngant am su ngant amee nag maadaama jubluwaay bi mooy sànni loo ko mën a sànni ak takbir incha allah dina remplacer loolu naam naam ala kulli xaal kon mbokk ñu ngi doy lool di ñaan yàlla subhanahu wa taala yal na yàlla defal ñu tawfiix it gi ñu jëm yal na yàlla yeggale ko ci jàmm ñuy fàttali suñuy bopp di leen fàttali wooru suba gi su ngeen demee ngeen fàttali ko njaboot gi ku ko mën a woor na ko woor di xamal it ne dimanche bi di ñëw ak àllarba ba jim topp lii di dars bi xam naa dañ koy bàyyi ba ñaar yooyu passé mi ngi noonu wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain